la yir te lafal dal nga samam xel sa yaaya wi jëy ni affaire bi nday ci la moo du gën tàccu lii eh am na ñu ko bëgg ñu koy waaje bëgg moo ñi bëgg ba pare moo njéeye neexu leenam njeey jeey li ma wax sànq laa bëgg a delloowaat buum ca booy booy ba dama ni Baba Garas jëppam la madame la maire adjoint le maire tubaarkalla laaw la cag ko defee ni war nga ko def njëkk tedd rek ngay dundee la sànq liggéey bi ngay liggéey di ko sellal moo tax nga am lii boo doon mbaraan di ca bool day sax du ko naw ne fër ewaay njee sama waa ji taalibe ba ba kër si bi ba kër dara maam arma la kumba caam bëgg wa pen ndaak paate pen na xaar yàlla bopp njee yaay taba saba boo tukkee dafa yàgg dama lay juddu bee la mag ngalam bee la mag ci sa état su nga jàngee raam njeeji faatu faatu bi ci njii suma waaji sambali ngeer baa ngi nii financement la ñu wax sa loxo nga ca hôpitaux yi lañu wax garmi seet si nga garmi garam seet nga seet si nga bete bete seet si nga jéggu ndeyam gërëm njéey jéey sama waa ji sama woowee damay ñëw te sax ku la xam ne damaa amoon xew waaye dama ko reporté ndax yow ndax yaa ma ko jaral koo xamul noo koy def nan la dafa tax nga ànd ak for délégation. donc ñu santaan ñëpp rek waxtaan bi rek que ni Ndieye Ndieye mu nekk premier adjoint maire bu Baba Garage. mu nekk it euh, mën nañu wax ni ci tund woowu première femme bi nga xamante ni nekk na maire Sow mu nekk nekk koo xamante ni aussi foofu muy cosaanam lu mu am moo ko gënal te lu mu am it fa la ko yóbbu kon niñ ko xamee rek yaakaar na wax nañ waxtaan nañ ko sànq ci waxtaan bi association la boo xamante ni ci li ci nekk presque ëpp na 1000 personnes kon loolu vraiment euh, du moom rek nit nag boo jiitee mbooloo mbooloo bi da ngay ànd ak ñoom lu dëkk loolu moo tax bi ñu defee loterie bi aussi euh, seen localité ga yi ñu indi ci euh, financement bi kon daal li ñuy lancer un appel mooy que ni moom femme de développement la tey ci loolu lay dox donte nag appel la vraiment mu nekkit koo xamante ni président Macky Sall moom mii moo ko njëkk indi Babacar mu a seede la. taal logo bi logo bi logo logo auditeur bi waaw. wax leen du bi xamul. ndax yow jàmbaar yow association bi dañ ci nekk gañ mais gañ Siri Diagne moom ma boole ak yow moom mu bokk association bi ñëw ni ma amit la femme de développement femme bu gëm boppam ko indil ma mais biñ ko indee bi ñu waxtaanee ak yow wax dëgg yàlla lépp loo xam si lu la gañ boole woon ak ma lépp jàmbaar nga fajar nga yow gëm ko association bi parce que man li nga ci daj ñu lay sant ñu ngi ma baax vraiment yow ñoo ngi am kontaan ak mbégte ci yow ndax ba ñu sumbeeku ba léegi yàlla mi ngi ñuy dimbale yow mënuñu laa fay dañ lay ñaanal rek nga yàgg bu nekk parce que sa yéene ñëw waa ñoom ñëpp seen yéene ak seen xol mi ngi ci yow financement bi dina dem fépp daal. mbokk yi safoo baatu xol bi Dakar Live TV tey nag ñu ngi fii ci Guédiawaye gis ngeen ñu fi ñëw solo bu am ay jigéen ñoo dajaloo seen biir ah, nekk réseau des femmes waaye tey dinañ waxtaan ki nga xam ne moo nekk ci ak li waral bés bi madame Ndiaye gis ngeen financement bi def éwétu ndax moom lii moo ko waat madame Ndiaye lan moo waraloon financement bi gis ngeen jox ay femmes ak lan moo fan la jógee ak ñu ko soxal waaw onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani sante yàlla julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm femme yi nga xam ne ñoo ñëw ci financement bi yëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax financement bi nag comme ñoom dañu am une association euh, qui se nomme association femme santé aide et développement euh, association bi nag li ko tax a jóg mooy dimbal jigéen parce que man dañu gëm ne jigéen mooy lépp bu jigéen demee lépp dem bu jigéen réussir ñëpp dañuy réussir parce que jigéen mooy yaay jigéen mooy lépp jigéen moo ëmb lépp boo dimbalee jigéen rek dimbali nga toute une famille loolu moo tax euh, association femme santé et de développement dañu ñëw dugg ci ay financement dugg ci ay formation dugg ci yëpp bi ñu ñëwee nag euh, financement yi nga xam ne si bi ñu ko defee dañu def suñu tirage bu ñu defee suñu tirage euh, Médinatul waral bi nekk ci Géejawaay Aminta Ndiaye mi jiite ko moom moo ko gañe mais duñu ci yem dinañ dem ci 14 euh, régions du Sénégal yëpp dañ ciy dem. voire même la diaspora. incha allahu rabi dañ ciy dem. yaa ngi koy wax sa biir wax léegi. Mhm. Euh, seen mbootaay bi. Mhm. da def li nga xam ne mooy formation jagleel ko suñu yaay ak suñu jigéen ñi. Mhm. waaye tamit génnee ay financement jox ko suñu waajur jigéen yi nga xam ne dañuy sonn. association bi kañ ngeen ko taxawal. association bi ñu ngi ko taxawal depuis mille 2014 depuis 2014 lañu lañu la ñu taxawal association bi. lépp jigéen moo ko tax a lépp jigéen moo ko tax a léegi ki nga xam ne dafa nekk fi nga xam ne mooy Kaolack wala feneen. Mhm. te mu ngi dégg affaire bi donte am na dëkk yu bëri ci bopp. nan lay def ba adhéré wu ci li nga xam ni ñuy def koy adhéré parce que dëkk bu ci nekk dañ fa am cellule. on a des cellules partout. quatorze régions du Sénégal yëpp dans la région de Fatick Diourbel Thiès fépp am nañu fa ay cellules cellule bu ci nekk dafa am une représentante bu nekk foofu léegi ñu soxla. toujours dañuy dem ñoom ñu inscrit foofu et puis nous avons des cartes de membres. Mhm. ku jënd carte de membre rek adhéré nga directement ci association bi. tey ñëw ngeen fi nga xam ne mooy géejawaay génne fa ab koppar bu toll si mën nañu juróomi million. parce mhm. que jege na ko. ngeen ci Sénégal. bi sax. Mhm. di ngeen ko def incha léegi ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñooy autorité parce que yéen jigéen ñi daal dafay baax ñu bàyyi leen xel rawatina son excellence le président de la République Macky waaw loolu moom dinañ ci sawar. parce que ñu ngi lancé chez le président de la république le président de tous les sénégalais ñu ngi koy lancé un appel di ko wax ni ko na dimbali jigéen ñi nañu dimbali jàppale ñu ci ay formation jàppale ñu ci ay financement pour femme la femme mën a autonome parce que femme bu auto am femme bu amee une autonomie rek financière dina mën a dem loolu la ñuy ñaan le président de la république en plus ñuy ñaan aussi le ministre de l' artisanat parce que femmes yëpp mën nañu dañuy nekk ci secteur artisanat bi la ñu gën a nekk lañu ñu gën a yëngu nañu dimbali jàppale ñu ñu am ay formation parce que ñu ngi def formation eau de javel wax nañ ko sànq ñu ngi def euh, formation savon ñu ngi def le fruits et légumes ñu ngi def yëpp nañu gëstu ñu dimbali femmes yi dañuy wax aussi benn précision dañ koy indi cette association est apolitique amul benn coloration politique. ñëpp dañ ci nekk ku nekk femme rek ci nga bokk nañ ñu dimbali ñu dimbali femme yi ñu mën a dimbali aussi seeni doom parce que jigéen bu amee rek doomam dana am. macha allah madame Ndiaye waaye tamit euh, wax ji tamit am na loo xam ne aussi faaw ñu boros ko si waxtaanee ko ci mhm. moo ne madame Ndiaye dafa am foo muy Baba Garage euh, ban message aussi ngay lancé waa Baba Garage ku ci ne xam na ni Ndiaye waa Baba Garage la ku ci ne xam na ni man dama bëgg Baba Garage loolu ñëpp xam nañ ko mais daf di Baba Garage financement yi dañ ko tiire bi ñu ko tiiree ñii ñoo gañe waa Medinatul a d'ailleurs am na ndogu bu ñu fa defoon Baba Garage foofu lañ ko commencé fa lañ débuté yëpp on avait distribué des billets de des des tickets de restaurant yëpp distribué nañu foofu. aussi daara yi daara bu nekk Baba Garage aussi joxoon nañ leen ay savon jox leen aussi ay yére yoo xam ne mën nañu joxoon ci daara loolu yëpp aussi association bi moo ko génne woon joxe. Covid bi aussi bi mu dé bi mu bi mu débuté Covid bi première vague bi. dañu ñëw association bi dañu distribuer ay savon avec eau de javel demoon nañ ci juma bi nekk euh, Géejawaay marché Sam ci kaw dem nañ fa dem nañ aussi paroisse bu euh, bu Thiès dem nañ fa te loolu aussi ñun jigéen ñi dañuy dox aussi ci dialogue islamo-chrétien association bi aussi daf ciy dox dem nañ aussi juma Paal dem nañ fa dem nañ Fatick dem nañ aussi ci jumaa yi ak jàkk yi nekk ci Dakar yu ci baree dem nañ fa jox leen aussi ay savon ak ay ak ay eau de javel yooyu yëpp jox nañ leen ko. sëñ bi mhm. dëkkandoo HLM Grand Yoff aussi ñoom mhm. gis nañ tamit gis nañ tamit étudiants yi ngay dimbale di leen utal bourse ci yenn université privée yi aussi tamit. Mhm. lan lay tàggatoo waaw loolu yëpp aussi suñu ko mënee du man association bi la toujours daf ni lu ci nekk rek. bu amee dañ ñaan jàppal jiw mais du man ñun ñu bokk ci association bi yëpp ñun la du man man mënu ma dara bu doon man kese njéeye kese la du dem mais ñi ma ko àndal ñoom la bourse aussi ñun ñoo koy ànd lijjanti ko ak suñu ay partenaires comme ni ñu defee ne aussi ci financement yi dañu ut suñu ay partenaires ñu financé yi ñu mën a dem dimbali jigéen ñi bourse aussi ku dimbali ku sa doom am bourse dimbali nga njaboot parce que yaay mooy sonn mooy lijjanti jàngi doomam mooy lijjanti yëppam kon doomam bu amee bourse kon dimbali nga yaay waa Géejawaay waaw dama leen dénk ni leen xam naa ni ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ parce que ki ànd ak ñoom jàmbaar la parce que amit tamit ñoom xamul daray tappale dama ko wóolu comme ni ma ko waxee sànq wóolu ko moo tax ma ñëw ñu ko aminta xaalis baa ngi nii séddaleel te wóor na ma ni waa Medinatul Munawara incha allahu rabbi dinañ fay lépp ba mu mat te bu ñu fayee ba pare incha allah dinañ yokkaat yëpp ñun ñaan yàlla ba ngeen am ay 20 millions ay 30 millions dem sax ba dootu leen soxla benn financement lépp yéen a koy lijjanti seen bopp. biir màkk yi biir rom yi. ñëpp ngi fi parce que association bi ñëpp ngi ci bokk. ñëpp ñu ngi ci biir association bi. jërëjëf madame Ndiaye merci beaucoup yéen itam maa ngi leen di gërëm di leen sant merci. waaye géer gi dama laa bëgg képp ko man bëgg na la eh, njéeg man bëgg naa la borom baaba garaas monsieur le man bëgg naa la njéeg bu wax ji bare du yow waaye ɗo gokkimi karas karas kuma kakko ɗoñ woni wosan ɗo jiɗɗo jankala ɗo taɓanɗor mi ɗogi bakkan siri kuma mere weyje xam naa ni dama koy dëgg ndax guddi njëyee dama waaje samba lingeer baa ngi nii nit niite daf xamul dara ma yéen nit niite awul yéen daf xamul dara ma yéen njëyee nit niite xam nga daf xamul dara ñëwal ku sa yaay maanoon yaayam doom jee yaa koo man njee ku sa baay maanoon baayam doom jee yaa koo man mani sakkal sarax wëndali ki sa bopp sa baax na baax na bari na maa ci xam dara juddoo ni nga juddoo màgg ni nga màgg sëyi ni nga sëyi moo ni sa man seeni baay sa baaya man seeni yaay woy nit ñi te woy